rukóom da ngay sàbbaal kese waaye doo wax yàlla may ma nangam bi ngay sujjoot nag moom mën ngaa ñaan bu baax a baax ndax dañoo wax ni sax booy sujjoot ngay gën a jege sa borom foofu nag kon loo bëgg a ñaan rek mën nga koo ñaan boo ca boolee nag ci subhaana rabbil a'la allahumma axfir li jooje nag kon ak ñaan lay doon walaysa li tooli daalika déddi ñeel yàggaayub loolee waxtu waxtu wa aqalluhu waaye gën jaa néewum an topp ma inna moo di bu dalee ma faa siluka say tengo mu tamakkinan mbir mu ngay aji sax wala mbir mu ngay aji dëgër daa wax ni boobu nga sëggee di sujjóot ñëw bu faaw nga am fa nangami minute mbaa dara waaye nag lu néew néew nga ne fa teg bëccër yi dal ndax dañoo waxoon ne foo toll ni fa teg bëccër yi dal moom farata la kon nag ne fa teg bëccër yi dal mënta ñàkk gannaaw bëccër yi dalee nag loo ci yokk mu doon sunna su ma tarfa mu topp da nga yëkkati raasaka sa bopp bi takk bii di ànd ak wax allahu akbar fa tajlisu te ngay toog fa tas ñi te ngay lem rijëla ka sa tànk alil sara bay càmmooñ fii juloo si ko ci sab jataay bay nas sajada tey ne diggante ñaari sujjoot ña watal si buti ngay samp aliyum naa tànkum day joor ba wa butoonu asaabiha te biir ay baaraamam ilal ard jëm na suuf wa tarfaxu te nga yëkkati yaday ka sa yaari loxo xanil ard jële ko ci suuf xalaa rukk ba tey ka teg ko ci sa ñaari bati woo li muy wax ni mooy bi nga sëggee sujjoot nag ba ne tekk ba sëcc la dal da ngay def yëkkat te boo yëkkati ko nga booleeg wax allahu akbar ndax dañuy tàmm looy jëf rek boole jëf gi wax gi allahu akbar boo toogee diggante ñaari sujjoot ñi am na nu ñu taamu nga tooge na mooy dañoo bëgg nga lem sa tànkub càmmooñ te bañ caa toog sa tànkum ndeyjoor nag moom nga bàyyi ko mu yëkkati ko bañ a tëdd ci suuf ba àgg te itam ay baaraamam jëm suuf su ko defee nag nga ne yëkkat say loxo na nga ko tege woon ca ba nga sujjóot mu dend ak say nopp nga ne yëkkat say loxo nag teg ko ci sa ñaari bëti woom mooy loxob ndeyjoor tegu ci bëti woomu tànkum ndeyjoor loxob càmmoñ moom it nga ne ko tegg ci bëtu woomu tànkub càmmoñ foofu nag moom doo fi yëngal benn baaraam boo toogee diggante ñaari sujjóot doo fi yëngal benn baaraam ni mu wax ni moom lañ bëgg nga toogee ko nag boo toogee diggante ñaari sujjóot moom lay bëgg a wane nii waaye jëfewut te itam kii déglu nu xam ne melo mu wax yëpp lu ñu sopp rek la waaye boo ko bàyyi itam du dee julli gi baax waaye ni mu ko waxee nag moom lañ ci gën a taamu summa tasjudu topp na nga sujjoot asaaniyata sujjootu ñaareel ba kama faxalta na nga defee woon awalan ci njëlbeen xam nga wax na la ni ngay sujjooti benn sujjoot bu ko defee na nga del sujjoot na sujjootu ñaareel ba na nga sujjooti woon bu njëkk ba summa taqoo mu topp na nga jóg minal ardi bàyyikoo ci suuf kama anta naka yow moo tamit dañ mbir mu ngay aji sukkandiku xalaaya day ki sa yaari loxo laa tarjixu doo dellu jaali san mbir mu ngay aji toog li taqoo ma ngir nga jóg min juloo sin di bàyyikoo ci jataay walakin waaye kay kama dakar na ma tudde woon rek lakka ñeel la daa wax ne bi nga amee benn rakka te mooy bi nga sujootee sujootu ñaareel ngay def yëkkat rek daal jëm ci kaw xam nga léegi jóg jëm ci rakkum ñaareel rek moo des ngay def yëkkat daal jëm ci kaw rek waaye bu toog bu àggal nag door a jóg xam nga foo amul jotaay boo amee benn rakk dong ngay def yëkkat rek daal wuti rakkum ñaareel bi waaye foofu nag bul fi toog ba noppi door a jóg ndax kon day mel ne da nga faa def jotaay boo xam ne dëkku fa watu kabbiru te ngay kàbbar fii xaali qiyaamika ci waxtu sa jóg yoo bëgg itam boo tàmbalee jóg rek tàmbalee waxaale allahu akbar ndax ñoo bëgg rek booy julli moom looy def rek boole jëf jéeg wax gi allahu akbar ba mu des nag boo amee ñaari rakk jëm ci ñetteel moom daañu ko wax mu dañoo bëgg rek nga bàyyi ba jóg ba taxaw jon jon door a wax allahu akbar su ma taqaraw topp da nga jàng kama xarata na nga jàngi woon fil ula ci rakk bu njëkk aw duuna zalika wala lu yees loolee léegi taxaw nga ci rakkam ñaareelu suba dañoo bëgg nag nga jàng ba tey ci saa yu guddi yi na nga defoon ci rakk bu njëkk ba waaye nag bii mën naa gën a gàttalew saar ndax dañoo bëgg faawu foo ko fekk rakkam ñaareel gën a gàttalew taxawaay rakk bu njëkk ba waaye lu tee moom itam rek nga jàng ko ci saar yu guddi yi ndegam yow rek la mbaa nga ànd ñu sawar ci julli bu yàgg waa taf xam te ngay def mis la saalik kem loolee sawa al mbir mu ñu way yemoo xëyra an naka ndare naka yow taq nut da nga xunóot bax da rukkoo ci gannaaw rukkoo wa in shiita dem soob na la xanat da nga xunóot qabla rukkoo ci njëkk rukkoo bax da tamaamil qiraat ci gannaaw matu njàng ma bax da tamaamil qiraati daa wax ne rakkam ñaareel bi moom ci suba na nga defoon te rakk bu jëkk ñoo bokk waaye nag am na lu ñu wutee mooy am na xunóot te rakk bu jëkk ba amu ko woon daa daa wax ne bu la neexee nga rokkoo ba siggi door a xunóot nga xam ne kon boo xunóotee waagal da ngay jàll sujjóot waaye loolu bariwuñ koo def li ëpp def kay mooy li mujj wax mooy boo jàngee saaro ba mu jeex bala ngaa rukkoo waaw kay foofu nga xunóote boo xunóotee baagal nag door a sëgg rukkoo nag loolu daal lañ gën a miin teewul nag loo ci def rek mu baax mu wax nag ñaanu xunóot wal xunóotu xunóot nag biñ taamu ci yoonu Malik mooy nga ne allahumma yow buur bi innaa naka nun nastaayinuka dana nu sàkku sa ndimbal wa nastaxfiruka te nuy sàkku sa njéggal wa nu minu te nuy gëm bi ka ci yow wa natawakkalu te nuy wakkirlu xale ka ci yow wa nax naaw te nuy toroxlu la ka jëm si ci yow wa nax laaw te nuy summi ko ci jëpp diine judul sa joj wa natruk te nuy bàyyi man képp koo xam ne yàq furuka dina la weddi sun boroom noo ngi sàkku sa ndimbal di sàkku sa njéggal di la gëm di wakkirlu ci yow di toroxlu jëm si ci yow di set wecc ci jépp dina juddu sa joj tey bàyyi képp ku la ñemee weddi allahumma yow buur bi iyaaka yow dong naa bu du la niy jaamu wala ka ngir yow rek nu salli la niy julli wa nas julli tani sujjóot wa ilayka jëm ci yow rek nas xaa la niy dox wa nax fidu tani gaaw narjoo dana nu yaakaar raxmataka sa yërmaande wa na xaafu tani ragal xadaabaka sa mbugal al juddaka aji tar inna hadaabaka naka sa mbugal muy xiqun aji yéeg la maanaam aji joti la bil kaafirina ci way weddi ñu yàlla suñu boroom yow rek la ñuy jaamu yow rek la ñuy julli la ko sujootal yow rek la ñuy gaaw jëm ci sa ndigal di yaakaar sa yërmande di ragal sa mbugal gu mett gi sa mbugal jëmale ko ci yéefar ya te musal nu ca nun ñi la gëm summa taf xaw topp na nga def fii sujjóor ca sujjóor ba wala juloo si ak jataay ba kama taqaddama naka mu jiitoo woon rek mu ne was fii ci melo xam nga léegi taxaw nga ba xunóot ba àggal li des nag mooy jàll sujjóot mais nag boo jàllee di sujjóot ak na ngay toog yépp moom dama ko waxee woon rek ràkk bu jëkk ba ñoo ko bokkule fa isa jalasta ndem toog nga ba das sajj di day ni ci gannaaw ñaari sujjóot ña na sabbata nga samp jël ko sa tànk alyum naa bay ndeyjoor wa bustoonu asaabiha te biir ay baaraamam ilal ardi yam na suuf wa sanayta te nga lem alyusa tànku càmmooñ ba wa afdayta te nga féetale mooy te nga àggale bi alyatika ci sa njekkikaay ilal ardi mu jëm suuf wala tax xot te bul jekki xalaaritika ci sa tànk alyusa bay càmmooñ daa wax ne am na melo woo xam ne weesoon nga ko léegi ci bi nga toogee diggante ñaari sujjóot ba tey boo toogee gannaaw ñaari sujjóot ni te mooy taaye ji nga xam ne moo ngay bëgg a def ndax suba ñaar ràkk la te li ma wax léegi mooy nga noppi ci ràkkam ñaareel gannaaw bu sujjóotee ñaari sujjóotam kon ràkkam ñaareel boobu kon toog taay rek des daa bëgg nag nga samp sa tànku ndeyjoor yëkkati ko bañ a tëdd bopp càmmoñ mi nga lem ko te bañ caa toog xam ne sa njekkikaay day àgg ci suuf moo tax mën naa bu toog ci sa tànku càmmoñ wane woon naa ko léegi waaye siita ndeem soob na la xaanayta nga lunkal maanaam nga dëngal alyum naa tànku ndeyjoor ba finti saa bi xaa ca sampoom nga fa jaalta te nga def jëm ba bax mi xaa wàllu baaraamu ndeyam ba ilal ardi mu jëm suuf fa waasiwoon aji dagan la tumma tata cheikh du topp da nga taaya xam nga daa waxoon ne tànku ndeyjoor bi da nga ko yëkkati baaraam yi sampu waaye mu ne bu la neexee nag nga xaw koo dëngal tuuti rek nga xam ne wetu baaraamu day wi mooy jëm suuf waaye du samp dëgg-dëgg ah du yëkkati ko ba noppi baaraam yi samp dëgg-dëgg mel ne nii ma koy bëgg a wanee ndegam suba nag moom ñaari rakk rek la kon nagay taaya kon daal di sëlmal mu far la andil nag taaya watta cheikhu du taaya nag boo ko bëggee def ni ngi koy defee ngay wax ak taxiyaatu mboolem baadi yi takkale nguur lillahi aji nak la ñeel yàlla azzakiyaatu mboolem jëf yu sell yi lillahi aji nak la ñeel yàlla ak tayibaatu mboolem baat yu tey yi assalawaatu ak mboolem julli yi lillahi aji nak la ñeel yàlla da nga ne baat yi nga xam ne mooy tegtale ngóor aku màgg yàllaa ko moom baat yi nga xam ne ñooy tegtale jëf yu sell yi mbaa baat yu tey yi yépp yàllaa ko yeeyoo ba tey julleeg ñaan yàlla rek yeeyoo ñu jullil ko yàlla rek yeeyoo ñu ñaan ko assalaamu jàmm yàlla xalayka yàlla nekk ci yow ayyuhan nabiyyu yow yonent bi wa rahmatullahi ak yërmande yàlla wa barakaatuhu ak barkeem assalaamu jàmm yàlla xalay naa yàlla nekk ci nun wa ala ibadillahi ak ci jàmm yàlla ya assaalihiina ñi way baax ashhadu maa ngi seere ne annaka lay mbir laa ilaa amul benn buur illallahu ndara yàlla waxdahu moom rek laa sharika amul jan aji bokkaal la hoo ñeel ko wa ashhadu te maa ngi seere ne anna muhammad naka muhammad abduhu jaamam ba wa rasuluhu tey ab yonanteem loolu mu def assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu am nañu jàng assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi am nañu ci dolli taxaala ba tey waaye lépp rek benn la soo agsee ci abduhu wa rasuluhu nag foofu la taaye jiyam taaye nag moom daa bari nettali waaye bi mu la jox nii moom mooy ñëw ci yoonu Maalik te dañ koo tànn ci Omaratul Xataab moo toogoon ca kaw minbar ba jàng ko ñuy dégg ñu mokkale ko ca moom nag boobu la Maalik moom taamu dañoo wax ne li nga njëkk a wax ne attaxiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillah yonante bi moo ko nuyoo suñ boroom suñ boroom fayee ko assalaamu alayka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu malaaka yi seen bopp daal di wax niit assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin li ci topp nag moom mooy yeesal pas-pasu lislaam ak seere si muy ashhadu an laa ilaha illallah ba mu daanu fa in sallamte ndem salmal nga baxda haasa ci gannaaw lii ajji sa aka mu doy la xam nga dégam suba ñaar rakk dong la boo taaya ba noppi salmal dong moo ci war a topp xam nga nag lii mooy taayam di mujj kon amul beneen taaya boo ci tegaat du tee nag nee na bu la neexee nga yem rek ci abduhu wa rasuluhu bañ caa teg dara dara lu muy dal salmal bi saas waaye nag la gën mooy taaya ja nga mën a salmali moom nga julli ci yonante bi walbatiku ñaan ba noppi bala ngaa sëlmal ñaan nga boo ko mënee ci arab duñu taamu nga wax ko ci lu may ci arab waaye bu fekkee li nga bëgg a ñaan yàlla mënu koo wax ci arab mën nga koo wax ci làmmiñ wala soob ci làmmiñ wa nga nàmp moo tax mu naa wa mimma bokk na ci la nga xam ne tas yiduhoo da nga ko dolli inchi tandeem soob na la mu ne bu la neexee nag boo agsee ci xabduhoo wa rasuluhoo nga dolli ci li mu lay bëgg a wax lii nag moom dina xaw a gudd mi ngi tàmbalee ci wa ashhab danaa seere ne anna lësi naka la nga xam ne jaa adikkee ne bisii ci moom muhammadul muhammad xaqun dëgg la wa annal jannat ak naka àjjana xaqun dëgg la wa anna naara ak naka sawara xaqun dëgg la wa anna saaxat ak naka bis penc aatiyatun aji dikk la laa rey ba amul benn sikki sàkk fiihaa ca moom wa anna laax ak naka yàlla yebaxatu dana dekkal man képp koo xam ne fil qubuuri nekk na ci bàmmeel ya waaye nag ak ñu nekk ak ñu nekkul ci bàmmeel itam dañu ko waxe noonu rek ne man fil xubooy waaye ku am rab lekk mbaa mu lab ci géej mbaa am ndox meneen ndox itam du tee ñu dekkal ko maanaam nga wax ne maa ngi seere ne li Muhammad andi lépp dëgg la àjjana lu am la sawara lu am la bis penc luy ñëw la amul benn werante te it képp ku deexoon yàlla dana ko dekkal allahumma yow buur bi salli yàlla na nga dool tedd nga xalaa muhammadin ci muhammad wa xalaa ali muhammadin ak ñooñ muhammad warxam yàlla na nga yërëm muhammadan muhammad wa ala muhammadin ak ñooñ muhammad wa barik yàlla na nga dolli barke ala muhammadin ci muhammad wa ala ali muhammad ak ñooñ muhammad kama sallayta ni nga terale woon wa rahimta ak ni nga yërëme woon wa barakta ak ni nga barkeele woon ala ibrahima ci ibrahim wa ala ali ibrahim ak ñooñ ibrahim fil alamina ci mbindeef yi innaka naka yow xamidun ku ñu sant nga majidun aji tedd nga loolu la ñu tuddee asalaatu al ibrahimiyatu moom itam daa bari ay nett lool ci addis waaye bii la ci sëñ bi moom tànn ba andil la ko fii am na ñoo xam ne nag ndegam li mu wax daa bari buñu agsee fee xabduhu wa rasuluhu dañ ci yokk li tàmbalee ci wa ashhadu anna lasi ji ba ci hamidun majidun xam nga su boobaa julli nga ci yonante bi ñu teg ci nag rabbana atina fi dunya xasana ba mu daanu daal di wax asalaamaaleykum xam ne kon boo ko waxee jul nga ci yonante bi ñaan nga itam door a salma waaye ëgut waaye li ma lay wax daal moom matagut mooy da nga ciy teg allahuma yow buur bi salli yàlla na nga dool tedd nga xalaa malaayikatika ci say malaaka wal muqarrabiina ak ña njegeñal wa xalaa ambiyaayika ak ci ñañ solo sax mooy ña nga solo rek wal mursaliina ak ñañ yónni wa xalaa ahli taaxatika ak ñañ sa topp ajmahiina mboole seen mooy yàlla sa malaaka yëpp yàlla nga leen dooli teraanga rawante na ñi nga ci gën a jegeñal sa bopp dale ci jibril mikaayil israfil hasrail yàlla yàlla nga dooli teraanga itam mboolem ñi nga wax yu ba noppi te digaloo leen jottali ak mboolem ñi nga wax yu ba noppi digal leen jottali mooy ña nga solo ak ña nga yónne ak mboolem sax ñi nga xam ñoo lay topp yàlla na nga leen dolli njéggal ak yërmande allahumma yow buur bi irfir yàlla na nga jéggal lii ñeel ma wali walidayya ak ñeel sama yaari waajur wali aimmatina ak ñeel sunuy kilifa wali man ak ñeel képp koo xam ne sabaqanaa jiitu woon nanu bil imaan ci gëm maxfiratan jéggal xasman gu dog sunu borom yàlla nag ma jéggal jéggal samay waajur ak mboolem sunuy kilifa muy borom xam-xam yi muy sunuy njiit ak képp ku nu jiitu woon te gëm la rek muy saxaaba yaak ña topp ci seen gannaaw jéggal leen jéggal gu dog allahumma yow buur bi innaka naka yow asaluka dinaa la ñaan min kulli xayrin ci yépp yiw sa alaka woo ñaanoon na la min hu ci moom muhammadul muhammad nabiyu ko kay sab yonante wa ahuma bi tamit muslim bi ka ci yow min kulli sharrin ci yépp ay istahaasaka woo sàkk woon na laa muslim min hu ci moom muhammadul muhammad nabiyu ko may sab yonante wax ne ne ñaan googu ñaan gu matale la ndax suñu borom maa ngi lay ñaan yépp yiw woo xam ne sa yonante mas na la koo ñaan te jombul ci man maa ngi lay ñaan nga may ko te lay ñaan nga musul ma ci yépp ay woo xam ne sa yonante mas naa ñaan nga musul ko ci may itam nga musul ma ca allahumma yow buur bi ixfir yàlla na nga jéggal lanaa ñeel nu maa la nga xam ne xaddam naa jiital nañ ko ci ay moy wa maag la nga xam ne axar naa yeexe nañ ko ci topp wa maag la nga xam ne asrar naa nëbb nañ ko ci moy wa maag la nga xam ne axlan naa feeñal nañ ko ci ay moy feeñal nanu ko ci ay moy wa maag la nga xam ne ante yow axlamu yaa gën a xam bii ca loolee min naa ci nun rabbana yow sunu boroom aatina yàlla na nga nu jox fi duniyaa ci àdduna xasanatan wépp yiw wa fil axirati ak ci àlaxira ba tey xasanatan wépp yiw waqinaa yàlla na nga nu fegal xazaaba naari mbugal gu sawara sunu boroom yàlla na nga nu baal lan jot a jiital ci ay moy ak lan yeex a def ci ay moy ak lan ca làq ak lan ca feeñal ak la nga xam ne sax yaa ko xam te nun xamunu ko mbaa nu fàtte ko tey fàttewoo ko yàlla yàlla nag nu may ci àdduna lépp lu yiw may nu ci alaxira lépp lu yiw te fegal nu bëggal gu sawara wa a'udhu dinaa muslu bika ci yow min fitnatil mahya ci fitnay dund wal mamaati ak dee wa min fitnatil xabri ak ci fitnay bàmmeel wa min fitnatil masih ak ci fitnay masih ak dajjaali kadi ab fanaakoon wa min hadrabin naari ak ci bëggal gu sawara wa su'il masih ak ñaawug mucc assalaamu jàmm xaleyka yàlla nekk ci yow ayyuhan nabiyyu yonent bi ayuha nabiyu wa rahmatullahi ak yërmande yàlla wa barakaatu ak barkeem assalaamu jàmm yàlla xale naa yàlla nekk ci nun wa ala ibadillah ak jàmm yàlla yi assaalihin ña dewee baax su ma taxoo topp da nga wax nag assalaamu aleykum taslimatan ab salmal waaxidatan bu di benn xan yow mi ni ko wali sawet ndeyjoor taq siidu da nga jublu bi xaa ci moom xubaalata wàcc yi ka njëxul sa kanam wata tey yaa mënu da ngay ndeyjooru bari asika ci sa bopp xalilan tuuti li ngay daaneele sa ñaan daal mooy yàlla yàlla nag ma musal ci fitna yi dund fitna yi dund nag mooy di dund ba noppi di soxlawoo lu dul yàlla ba tey musal nu ci fitna yi dee mooy ñàkk deexaale gëm musal nu ci fitna yi bàmmeel ni ki laaj mu metti maag mbugal yi bàmmeel yaa ngi demee noona musal nu ci fitna yi kii wax naa day ñëw ci mujj bu jamono tudd almasiixu dajjaal te bu dikkee woote ne man yàlla laa amee ajjanaam amee sawaraam ku ko gëm mu yóbbu la ci ajjana ja ku ko weddi mu yóbbu la ci sawara wa nga ne suñu borom kooku de bu fekkee fekke naa ko yàlla nag ma ci musal ci fitnaam baa mu ci jox musal ma itam yàlla ci mbugalum sawara muy ba min xasaabi naari ji musal ma itam ci mujj gu ñaaw yépp yàlla musal ma ci soo agsee foofu nag nga door ne assalaamu alayka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin waaye daa mel ne am na ñoo xam ne ñu wax ne ñu tàmbalee assalaamu alayka ba ci saalihina ji da ko wax rek waaye taxul net li ba dëgër waaw net li boobu daal moo wax dëgg yàlla li ñu gën a jàpp mooy lépp mi ngi yem ci wasoil masiri ji rek bu ko defee na nga daal di wax assalaamu alaykum bo boo ne assalaamu alay ba mu des kum kum ji nga xaw a dungoo tuuti ci sa wet ndeyjoor nga xam ne ku la féete woon ci gannaaw di seen sa peg leex dungoo googu tuuti dañ koo sopp bokk na ci ngëneel yi xaagasaali ki ñi nag yaf xalu lay def al imaamu ilimaan wa rajulu ak waay wax dafa moom rek nee na benn sëlmal bi dong nag bu dee yow dong yaay julli am laa kenn moom ngay def ba tey bu fekkee yaay jiite itam benn sëlmal boobu rek ngay def bu dee ci yoonu Maalik moom boo dee julli yow dong mbaa ngay jiite doo weesu benn asalaamaaleykum wa amal ma amoon daal maa moom fa yu salli mu day salmal waahidatan benn yetta yaa mënu bob day ndeyjooru bi xaa ci moom xalilan tuuti waya ruddu te muy delloo uxraa beneen xalal imaam ci ilimaan ba xubaala taxoo ci njëxam yu siiru dana junj bi xaa ak moom ilayhi jëm ci moom waya ruddu te muy delloo xalaaman ca ka nga xam ne kaana nekkoon na sallama di salmal xale yi ci moom xalaa yasaari yi ci càmmoñam ba fa indam yekkun dem nekkutoon sallama di salmal xale yi ci moom ahadun kenn lam yarut dakkoon du delloo xalaa yasaari ci càmmoñam ba chey an dara nee na boo doonee maamum nag mooy am na ku la doon jiite te ngeen toogee di julli am na ku la féete ci wetu càmmoñ boole ci kon na nga wax asalaamaaleykum ñetti yoon ndax ngay wax asalaamaaleykum bi nga xam ne mooy farata mel ne bu ñëw dong nga waxaat ndànk nag asalaamaaleykum junj ko jëmale ko ci sa ilimaan bi lay jiite bu fekkee am na ku la féete woon càmmoñ nag te am na ci julli ga lu matub rakk nga wàññeeku ko ci càmmoñ moom it wax ko ndànk asalaamaaleykum bu fekkee kenn féete wala càmmoñ yaa mujjoon ci rang ba ci wet googu nag sa càmmoñ kenn nekku fa woon ba am na ko fa nekk waaye amu sax jullit lu matub rakka rakk bu mujj ba la ñëw te fekkul jàpp ci wóom ya kooku dañ koy jàpp ni amul dara ci jullit bi ba tey foofu doo fa delloo dara. waaye ji xal dana def yedday yaari loxoom fii tashahudihi ci biir taayaam ja xalaa faxizayhi ci kaw ñaari luppam rek. wa yàq ba du tamit nga asaabiha yadihi baaraami loxoom aliyum naa bay ndeyjoor wa yow bu sutu tamit tàllal asababata baaraamu sànnikaay ba yushiru yushiru dana junj biha ak moom wa qad nasaba te fekk na mu samp xarfaha catam la ilaaw ci jëm ci kanamam nee na boo toogee bay taaya da ngay jël say loxo teg ko ci kaw say lupp su ko defee dana leeral ne loxo càmmoñ bi moom ay baaraamam doo ci bank benn doo ci yëngal benn waaye na loxom ndeyjoor bi moom dañoo bëgg nga bank baaraamu sàngaleñ bi ak ba sës ci moom ñu koy wooye ndombor ak ba ci sësaat ñu koy wooye baaraamu diggatu nga tàllal nag baaraamu sànnikaay ak baaraamu déy yooyu yaar moom doo leen bank su ko defee nag lim jëkk wax mooy baaraamu sànnikaay bi da nga koy tàllal mu ne sant rek mel ne kuy joxoñ loolu nag jenn wax la daa am ñu wax yëngal gi am ñu ne déedéet danga koy tàllal rek noonu bañ koo yëngal bañ koo def dara lim njëkk a wax nag mooy tàllal gi bañ koy yëngal nga koy tàllal mu ne sàtt rek jëm ci sa kanam moo tax mu teg ci waxtu li fa wuuteef na fii taxriiki haa ci yëngalam nga am na ñu ne des na ko yëngal am na ñu ne des ko yëngal ci booy taaya wax ji gën a wër nag mooy des ko yëngal muy bàyyi ko ndeyjoor jëm càmmoñ di ko saxoo di ko saxoo ba kera ngay sëlmal jooju wax moo gën a wóor faqiila waxees na ne yaa taqib dana fas yaa taqidu bil ishaarati junj ga bi xaa ak baaraam bi ne anna allah naka yàlla ilaahun buur la waahid bu di benn ñu wax ne baaraamu sànnikaay boobu doo ko yëngal danga koy tàll mu ne sart rek ñoom nee nañu da nga ciy junj ne yàlla rek ay buur mooy benn baaraam boobu da nga ci wane ne yàlla rek ay buur di kenn rek de amul ñaareel soo ko dee yëngal nag moom li bëgg a wax wayeta awalu dana taawil man ka nga xam ne yu xarrikuha dana ko yëngal ne annaha naka moom maq ma atun bolde la des na jàng ba tey maq ma atun boo jubloo jumtukaay ba di seytaane ñeel seytaane ñi nga xam ne nag ñoo yëngal baaraam boobu dañu wax ne soo ko dee yëngal da ngay mel ne kuy dóor seytaane aw yat wu am doole di ko ca toroxal am na ñu jàpp lool ne ko yëngal ga loolay tegtale wa ahsibu man nag danaa jorot moom mi taalif moo wax loolu ta'wila zalika taawilug loolee maanaam maxnaam loolee rek daal an yadkura mu fàttalikoo bi zalika ci loolee min amri salaati ci mbirum julli ga maa loo xam ne yan axoo dana ko tere insha ndem soob na allahu yàlla xani soxi walis jiw fii xaa ci julli ga wa soxli ak soxla woo leneen xan xaa bàyyi julli ga mu ne man nag yaakaar naa ne daal yëngal baaraam bi li muy jariñ mooy li fekk baaraam baa ngi yëngatu da nga fàttaliku ne ci julli nga nekk ba doo juum sa xel mbaa sa yitte du jëm ci leneen moom daal neen loolu la jàpp ne rek moom la yëngal baaraam mu sànnikaay boobu di jariñ wa yaw bu surtout dana tàllal yaddu xoo loxoom al yusra bay càmmooñ xalaa faxiisi yi ci kaw luppam ba al aysari bay càmmooñ wala yu xarrikuha du ko yëngal wala yusiru tey du junj bi ak moom doon naa ko wax léegi moom laa doon wax léegi naa loxob càmmoñ moom da koy teg ci luppub càmmoñam rek waaye ay baaraamam du ca bank benn du ca yëngal benn wa yustahabu def na sopp ak zikru tudd yàlla bi isri salawaat ci gannaaw julli ya nga xam ne yu sabbi day sabal allah yàlla talaasa ñett wa talaasiin ak fanweer wa yaxmadu tamuy sant allah yàlla talaasa ñett wa talaasiin ak fanweer wa yukabiru tamuy kabar allah yàlla talaasa ñett wa talaasiin ak fanweer wa yaxtimu tamuy mottali almi atti téeméer ba bi ci wax ne laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nee na sopp nañ boo jëlee julli farata ba sëlmal wala ngaa naafila mbaa dara nga def sikkar yi nga xam ne dañ koy toxale ci ku baax ka bokk na ci wax astaxfirullah ñetti yoon daal di wax allahumma anta salaam wa minka salaam am nañu jàng tabaarakata yaa zal jalaal wa ikraam am nañu wax tabaarakata wa taalayta yaa zal jalaal wa ikraam bu ko defee nga daal def nag subhanallahi fanweer yoon ñett alhamdulillahi fanweer a ñett allahu akbar fanweer a ñett su ko defee nag muy téeméer bu manqué benn nga mottalee ko laa ilaha illallahu jooju ba ci wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jàng itam ayatul kursi yi benn yoon ndax la hadis ba wax ne ku saxoo jàng ayatul kursi yi ci gannaaw julli farata gu ne dara doxul digganteem ak àjjana lu may faatu wa yustahabu def na sopp bi isri salaati suba yi ci gannaaw jullit suba ak tamaadi sax fi dikkër ci tudd yàlla wa istighfaar ak sàkku njëggal wa tasbih ak sabal wa duhaay ak ñaan ila tulooxi samsi ba fenku jant aw qurbu tulooxiha wala jegeeg fenkam nga wala sa bi waajibin waaye du aji war maanaam sopp nañ boo jullee julli suba ba sëlmal nga bañ a waxtaan waxtaan adduna bañ a nelaw lu may dangaa gëmmantu lool lool ba boo doon def dara itam doo xam li ngay def kon say boo tëdd noppal waaye bu lool dañoo sopp nga toog di tudd yàlla di ko jéggalu di ko sàbbaal di ko ñaan ba jant bi fenk mbaa mu jegee fenk addis ba sax nee na boo jullee suba ci mbooloo daal toog noonee nga toogee di tudd yàlla ba jant bi fenk ba yëkkati ko ñetti meetar nga julli ñaari rakka loolu dana yo ci aj bu mat sëkk am na sax nettali boo xam ne moom daa wax ne ku def loolu am tuyaabay aj ak xumra yu mat sëkk yu mat sëkk yu mat sëkk nettali boobu dane man salla asubaha fi jamaatin suma qaxada yadkurullaha taala xata tatlu alchamsu suma salla rakxatayni kaanat lahoo ka ajri xajjatin wa umratin taammatin taammatin taammatin benn ba moom dafa daaneele wa salla rakxatayni kaana lahu sawaabu xajjatin wa umratin taammatayni taammatayni taammatayni nga xam ne xaalahoo talaasan am na sax beneen nettali bu ne boo jullee suba toog fa nga jullee woon waxoo lu may lu baax ba julli yoor yoor jot nga daal julli julli yoor yoor ñu jéggal la say bàkkaar doonte sax daa toll ne duusi géej loolu nag tax na gaa yu baax yi jiitu woon dañ daan xër ci gannaaw julli suba ñu def noonu rek bañ koo bàyyi boo nekkee nag ci béréb boo xam ne doo mën a séen jant bi ba xam fenk na ba yëkkatiku ñetti meetar am déet kon bu dee suñ béréb yi moom da ngay seet waxtu wañ nodde woon salaatu boo ca tegee waxtu ak genn wàll rek moom xamal ne kon jant bi fenk na ba yëkkatiku lu mat ñetti meetar kon man nga naafila wayar ka dana julli rakxatayil fajri ñaar rakkay fajar qabla pul qabla salaati suba njëkk julli suba bax da fajri ci kanaaw fenku fajar ñaar rakkay fajar lu ñu fonk la raxibatu la raxibatu mooy loo xam ne moo gën a màgg naafilay kese yi gannaaw bu julli sunna yi jàllee ñaar rakkay fajar moo gën a màgg naafilay kese yi ñu koy wax raxibatu ndax li yonente bi ne woon rakxatal fajri xayrun min addunia wa ma fiha ñaar rakkay fajar moo gën ak nag li ci biiram bu amoon njariñ lool lool moom nag moom gannaaw bu fayal fenkee bala ngaa julli suba mooy waxtoom foofu nga koy jullee te it day aajowoo nga yéene ko yéene ju ràññiku bu fajar fenkoon rek nga julli ñaari rakka sam xel demul ci ñaar rakkay fajar laa jublu koy du doy te it day aajowoo mu wóor la ne fajar fenk na booy nattable ba xam fajar fenk na am fenkut ba tey boo ko defee du doy nga jàpp foofu itam ne su fekkee ne dangaa jullee ñaar rakkay fajar yooyu sa kër door a ñëw ci jàkk ji boo ñëwee jàkk ji doo leen baamuwaat te it doo def nuyoo jàkk da ngay toog rek bu fekkee li xaamaguñ nga toog ba ñu julli rek nga ànd ja jooju wax moo gën a wóor ba tey bu fekkee dangaa ñëw ci jàkk ji fekk ñu li xaamal ilimaan man nga fay gaaw julli ñaar rakkay fajar yi door koo dabi du tax nga sañ ko ndax lañ ne woon ci hadis ba ida uqimati salaatu fala salaata illa al maktubatu maanaam buñu dégli xaamal farata farata ji képp lañ fa sañ a julli loolu moo tax te yooyu jamono doo sañ a génn daa koy def ci bitti ñëwaat déedéet ngay ànd ci julli suba ga rek bu jant bi fenkee ba yëkkati ko ñetti meetar nga mën a fay ñaar rakkay fajar ñi